aja fama sampuna bejen oh xolal xale ah, bejen bi bangi non ndeysan mu ngi forcer bejen bi de cay ndeysan fulama la ñewé nak waaw tangal sengor yi ngi talal sengor yi ñu koy Camara, député Monsieur Karim Serre, maire de la commune de Bubla. Merci. rek waay xale béten bi ndeysaan te du yomb de ku amul doole ku amul mystique doo yóbbu làmb bi tey bisimilaay jàmm waaw waaw Gandia Family la la cay waay waaw ah, waaw ndeysaan lii xaatim la wala lan la nii Gandia Fama Gandia Fama tàllal la ko ndeysaan morceau bu weex la cey lii lamb waay lii lamb rek la mun a am lii eh, bi nee na na gaaw Sika bi nee na na gaaw de confiance Fama confiance fii ci Djilor cey ndeysaan lamboo naa la diya day caaxaan di ko jëlee ndeysaan